mbirum Azer moom dégg naa leen ama comme dañu mën a fen ñu naan wuy affaire Azer ci jamonoy Macky Sall lañ ko def man nee naa leen ñoom ak Macky Sall bon la ak yées mooy sama gëm-gëm man coowu Azer dafa am solo ñu taxaw ci parce que Tchou Azer banque bi nga xam ne daf ci doon liggéey sénégalais et ay espagnol ce qu'il faut rappeler que le directeur général Bob ñu fa tabb muy naka Jean Michel Michel Sen. nga xam le mës dara premier poste DG la le Sénégal réclame premier poste ce premier bulletin de salaire DG et il y en a beaucoup hein? oui non parce que amuñu ressources yi amuñu ay borom xam-xam amuñu capital humain Comment xam nga man capital humain parce que je suis la seul. seul. sax dégg naa leen ñu ñambaas ko ci projet bi di wax waxi capital humain alors directeur bu moo jaar ci suuf rocc ci sénégalais yi dem signé ji ak espagnol yi waaw bu ñu tàmbalee projet bi ci jamonoy Macky Sall mais ñoom ñoo yeggale projet bi 37 milliards yi banque biy laaj banque Santander dafa ne bi ARCOP di suspendre marché bi dafa ne banque Santander daf ko laaj ne ko 37 milliards yi ma joxe. gisatuma xaalis bi xaalis bi nee na may kenn gisul 37 milliards waaw léegi comme waa ji fëggoon dënam naan day jubal ko jubbanti te jubuñu mais Ousmane Sonko nañu wax 37 milliards au Sénégal yooyu fu mu dem Ousmane Sonko premier sinistre du Sén ministre du Sénégal wax ñu fu xaalis bi dugg. 37 milliards yi nga xam banque Santander mu ngi koy laaj la Ousmane Sonko wax ñu ci bonne gouvernance fu xaalis soxla et comme si cela ne suffisait pas ci fin ou semaine bële passé dañ doon wax dañuy

Nous avons ak ñi doon toj ñu ànd ak ñi doon rajaxe ñi ànd ak ñi doon taal bokk ci ñiy saaga léegi saaga day dox léegi xaste day fay ñu defal leen daanaka lu ëpp fukki contrat ci présidence de la république defal leen ay chargé de mission nga xam ne salaire nekk na diggante 000 ci ñoo xam ne amuñu bureau parce que ñoom ñëpp kenn du la jox bureau bir présidence de la république amuñu bureau mais ca tout loolu moom Ousmane Sonko dafa dem créer gouvernement parallèle biir primature dafa dem recruter 21 conseillers ñoom ñëpp ku ci nekk ñu lay fay million ak lu topp weer wu dee bu nekk ngir nga nekk conseiller ci wetu Ousmane Sonko muy un gouvernement parallèle loolu mooy jub ne ñooy jubal ak jubbanti sénégalais yi ku nekk ci yéen dana xam exactement lan mooy taxawaay bi nga xam ne moom la ñu doon xaar mais li wóor mooy le 17 novembre incha allah yoon bu bon bi Sénégal jël yoon boobu mën nañu sauver Sénégal. Nous rectifier la trajectoire du Sénégal jël c'est de voter massivement pour l'opposition c'est de voter pour la coalition Sam Sa Kàddu yow mi tok sa kër mu jafé lol. yow mi dan bégal say dom te mënatoo y yow mi bëgg jënd fourniture mënatoo commerçant bi nek ci marché bi te yëf yi jafé ci mom tak leen seen digg fexe leen incha allah le 17 novembre prochain ñu voter massivement la coalition sàmm sa kàddu ngir ñu mën a fexe lii fi ne ñu jële ko fi parce que nag Sénégal dafa tàbbi ci ay loxo yoo xam ne amuñu xam-xam tàbbi ci ay loxo yoo xam ne amuñu mën-mën incompétent waaye tàbbi ci ay loxo yoo xam ne duñu xalaat parce que ñàkk xalaat moo tax moom Ousmane Sonko jàkkaarloog àdduna te naan leen chiffres yi ñuy jëfandikoo ci suñu réew ay chiffres yu ñu falsifié la xam nga sama maam dafa dafa daan wax naan bu ñu noppee dañoo gudrone dex waaye yaakaar naa ne moom it bu noppee rek dañoo gudrone géej gi Ousmane Sonko mi nga xam ne daw na déclaration générale moom mi nga xam ne wane na ne am na yéene bëgg na mais malheureusement mënul moom mi nga xam ne mi ngi jéem nañ ko ko nangul waaye amul xam-xam Ousmane Sonko moomu lañuy ñuy lool di wax moom ne rëcc na ci déclaration de politique générale and ci ak président de la république am boo xam ne amul kaddu woyof signature ñu àndandoo ñoom ñaar di yëngi-yëngi xëcc sénégalais yi yóbbu leen ci gutta moom Ousmane Sonko moomu ak président bi ñu ko tofal nañu xam ne rëcc nañu ci assemblée nationale bee passé waaye askan wi ñu ngi di xaar ngir Nous ngir jafe-jafe yi ñu teg réew mi sénégalais yi mën koo teggil ce sera à partir du 17 novembre votez massivement kon ni ngeen ko gisee wax c'est des mains inexpertes des incompétents des mesures réfléchies ñoom ñoo yore réew mi lii baisse des recettes là. C'est un document là. ngir kenn bañ fi ñëw wax ma ay waxu chiffre Li seen ay chiffre la comme nawet bi du seen nawet ca